avant ñuy ñëw ci yenn point yi nga xam ni tey jii dina concerner li nga xam ne moom moo di programme parce que moom moo jiitee euh, mouvement bi ñu tuddee kon euh, mouvement nationalité jël nationaliste jël li ñu moom moom euh, Tahirou Sarr mais Tahirou parce que lii tamit xam naa ni il faut ñu ñu ñu dugg ci tuuti rek wax ci parce que instant bi commencé na jur coow lu bari commencé na jur jiix jaaxa muy mbay ñaar bi nga xam ni IGF muy inspection générale des finances daf ko épinglé lu toll ci vingt neuf milliards. mais gis nañ euh, ay euh, yéen comme yéen vous les acteurs politiques après gis nañ ki xam ne moom moo di Sonko génn wax daan ni IGE euh, moom ak épinglé Mame Mbaye Niang porox ndollu ci daal di porter plainte parce que nee na IGE épinglé ko ba Sonko war nañ ko mu war a wuy ji ci yoon le 2 février bi nga xam ne moom la ñu demoon est-ce que jàpp nga ni loolu maanaam ci wax yooyu noonu rek IGE IGF tey jii war na mën a nekk loo xam ni tey jii war na mën a jur coow ci wàllu justice non xam nga ñun on a comme ni ma ko yàgg waxee Sénégal amul justice en fait. Sénégal su amoon justice waaye Sénégal su amoon justice. di nga gis ay ministres yoo xam ne en pleine fonction dañu leen di arrêté ay directeurs yoo xam ne en pleine fonction dañu leen arrêté donc Sénégal amul justice maintenant euh, li jaraw xamal Sénégalais yi mooy lan moo tax Ousmane Sonko supporté plainte parce que dañoo luubal xaalisu Sénégal. Mhm. plainte bi du mujj fenn. après la moo tax tamit maanaam su nit jugee fee porte plainte Ousmane Sonko te bokk état bi. Mhm. plainte bi tamit gaaw comme ni mu gaawee ni ci kaw Mame Mbaye Niang. lu waral loo loo yaakaar ni moo waral. parce que Sénégal amul justice. amul justice quoi. xam nga Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne ministre du ko baaxal député du ko baaxal directeur du ko baaxal Sénégal président bi day bon dëkk bi di bon président bi day baax dëkk bi di baax malheureusement nag amaguñu président boo xam ne yërëm na askan bi xam na lu askan bi di di dund. xam nga démb maa ngi ñu def conseil interministériel. Mhm. pour maanaam lijjanti loo xam ne ñoom concerné wu leen parce que ñoom ñu toog ci conseil interministériel bi yëpp. Mhm. am nañu presque quatre oto convoi motard ak ay chauffeur donc ça veut dire que concerné wu leen koo ci laajoon kilo mburu ñaar lay jar xamu ko maanaam yow mënoo diriger ñoo xam ne xamoo seen réalité te ñi ñuy diriger nii certes jaaroon nañ suñuy réalité mais ba ñu demee ba toog dañoo beew après ñu fàtte. d'accord donc ça veut que lool la maintenant Mame Mbaye Niang dafa bëgg juste maanaam jaabanteloo Sonko après nag stratégie bu ci lalu ci ginnaaw loolu moom ak chef am na mooy Macky Sall parce que su mbiri demee nii ba war a convoquer Sonko c'est parce que xam naa Macky Sall joxe na ci maanaam avalam parce que ñoom ñëpp ku ci mën a yëngal dara ci opposition bi. Mhm. daa fekk maanaam le chef nee na waaw vas-y te chef bi su nee waaw vas-y mooy maanaam activer na procureur activer na ay juges am mhm. parce que am na lu mu ci pare maintenant nag. du ma def de la voyance politique xawma lu ci suuf mhm. mais xam naa ne am na loo xam ne ñu ngi koy ruumandaat ci loolu d'accord voilà d'accord mais ce qui est sûr et certain mooy mhm. euh, du Sonko kese moo jin Mame Mbaye euh, affaire xaalisu Prodac bi je pense que ci biir seen euh, parti si mhm. biir benn Bokk Yaakaar am nañu fa jiiñ Mame Mbaye tamit ci biir benn Bokk Yaakaar waaw ah donc voilà parce que affaire kii ba mu si ba mu ba mu sullee ko opposition wax na ci même ci biir tam wax na ci am na ñoo xam ne jiin nañ ci ay ñoom ñoo génne lii ñoo kii lii ba Mame Mbaye am na si ñoo xam ne xuloo na ak ñoom ci biir moom sax toog na wax ko. d'accord donc ngi noonu ci loolu la ñuy la ñuy dikkee parce que la fois passée ñu ngi doon dugg ci li nga xam ne moom mooy sa programme. ñu waroon ci mais avant may dugg ci programme je tenais à maanaam rafetlu dellu këru Cheikh Omar Diagne. waaw ak ak Abdou Karim. ak Pape Alé Niang ak Pape Alé te aussi di ñaan ak Ousmane Diagne ak euh, Ousmane Sarr aussi ak ñi nga xam dañ leen jàppee maanaam pour des raisons euh, maquillées terroristes te ba léegi wanuñu benn preuve ci Sénégalais yi ne c'est réellement la maa ngi ñaan yàlla ñu ñu dellu seen kër lii nag day firndeel juste que ne mhm. état bi moo téye justice bi mooy neex jàpp mooy neex bàyyi loolu kese la Sénégal oui loolu loolu rek lay firndeel dañ lay jàpp ba mu neex la ñu bàyyi la ñu jàpp ñu ba après ñu bàyyi la donc euh, voilà mais xam naa ne ay borom jom la jàppoon ay borom jom tamit la la bàyyi parce que bu dee Abdou Karim bu dee Cheikh Omar Diagne bu dee Pape Alé ku si nekk am nga sa fulla boo xam ne maanaam dëgg su taxee si ko da nga koy wax. Mhm. donc maanaam emprisonnement bi amul benn effet si ñoom. d'accord voilà. d'accord mi ngi noonu ñuy ñu ñu jaajëfal leen bu paree waxaale ko mbokki internet yi ah, muy Pape Alé Niang daal nañ koy bàyyi ni ki sànq mu am liberté provisoire Cheikh Omar Diagne Abdou Karim Gueye yëgoon génn bi depuis Euh, li nga xam ni moom moo di seen liberté provisoire mais tamit euh, ñi nga xam ni dresse nañ ab liste que jàpp ni lii euh, ay liste yoo xam ni dañ leen di jàpp te politique moom moo ko lal muy les détenus politiques te combat bi gis nañ ni ko jiite muy le COLIDEP collectif pour la libération des détenus politiques tey jii Euh, ñoom euh, liste bi li nga xam ni parce que 23 lañ dressé woon ak ñi si yokkaat ñoom Ousmane Sarr ak Bayna Diallo bi nga xam ni jàpp nañ leen la fois passée te ñu doon dem di crier le nom de Pape Alé Niang libéré te ñu jàpp leen ñoom aussi ba tey ña nga fële ca Ndungu Sine kon gars yi li ñuy wax rek ñoom ñu ngi wéyal xeex bi pour que ñu daal di bàyyi bépp otage politique boo xam ni euh, jàpp nañ leen te tegul fenn mais Tahirou tey ji dañuy ñëw tey ji dama bëgg ñuy waxtaan ci parce que lii damay gis à chaque fois une homme politique yu bari bu ñuy ñëw di présente seen programme mën nañ wax mën nañ ci wax mais mën nañ wax ci volet yëpp mais xëy na bi nii même buñ ciy wax tamit dañ ciy wax lu ndaw ndaw mooy parce que tey jii ñun gis nañ parce que pour.